asalaamaaleykum chers téléspectateurs yi ñuy topp chaque fois ci Baol Times TV seen revue de la campagne tey jii nag revue de la campagne ñoo ngi fi indil xew-xew yu mag.

dafa soxla rupture deuxième législature bi dafa war a nekk li nga xamante ni mooy constituer rupture bi nga xamante ni Sénégal moom doon xaar dëkk ndaxte soxlawuñ ay député yoo xam ne ci dañuy dem di nelaw wala di tàccu waaye député yoo xam ne dañuy taxaw seen askan xam lan moo métti seen askan ñu jóg ci dox seen tànk tubay ci biir loolu sax la xam ne ne euh, ki nga xamante ni mooy meerum Njaaréem du Malick Fall du yoon ñu koy jox li nga xamante ni tabaat wala askan wi fal ko député seen xel warta xalaat loolu ndaxte lu moo xamante ne nii mënut a saytu ko jox muy mairie buñ ci boolee député maanaam doublure de fonction boobu noonu nan lay mën a boolee ñaar yëpp di ko liggéey mu mu jàpp gannaaw loolu bi mu ci génnee tamit euh, joxoñ na baaraam ñi nga xamante ni mooy état bi nee tey jii bagub ren bi élèves ne ne sacrifié ndaxte moo am ay défaillance yoo xamante ne nii moo répercuté woo ci élèves yi ba moo ngi defal xolu ñi nga xamante ni jotuñoo am wax la te ñoom tamit nañ yow xool liste bi ñu fal ndaxte ñoom bu ñu fayee leen xeexal ba am euh, njiit yu mat yoo xamante ñoo nekk office yi ba ba nga xamante ni fii yi nga xamante ni Sénégal muska dootu ko am. Njaareem dañu war a fàttali ko ne ay taalibe lañu dëkku ay taalibe dëkku ay jullit duñ comme yeneen dëkk yi kenn koo fi jël ci liste yi xamante nañ rafetal yeggale ko ci jàmm borom xam-xam yi ñu tànn leen naba yi ñu wëcc leen te ñun ñoo yore xam-xam yéen noonu xam-xam lan ngeen di proposé. ñun li ñu li ñu li ñu li ñu proposé wax nañ ko fii léegi mooy ñun dañu bëgg courant bi dugg ci suñu dëkk. suñu département bëriwul courant tuuti dëkk ko am te Sénégal nag am na pétrole léegi te wote nañ constitution boo xam ne wax nañ ci ay nouveau droit ñun dañu war a am fourniture universelle de l'électricité fii ci dëkk ñun dañ ko soxlaw woon. wàllu élèves bu bac yi nga ne dañ leen sacrifice. élèves bu bac yi dañu wax ne ñii ko yor aayuñu mënuñu nguur gila rek nguur gi rek enquêtes yi nag ñu ngi am dinañ cité responsable waaye li ci question politique mooy dañoo mënul nañ ñu ñam ñum buñ ñu ñu doxal dëgg bi. gannaaw loolu tamit ki nga xamante ne nii comme ni ñu ko annoncé woon mooy président du conseil économique social et environnemental madame Ameth Tall ñëw na fi nga xamante ne mooy marché Ndoumbé Diop seet si commerçant yi bi mu fa dikkee waxtaan ak ñoom defal leen ànd ak ñoom naqar bi ba pare nag génn benn enveloppe boo xamante ne nii li ci nekk mën na cinq millions 5 millions yi nag yi Ameth Tall joxe nekkul chèque nekkul dara cash la ko mu doon liquide génn 5 millions ferme. jël ko jox ko marché boobu te ne loolu mënut a ñàkk ndaxte ci dëkk bi la dëkk faa mu dafa leen loolu te lépp loo xamante ni leen la mën a la cee taxawu dañ leen ci taxawu mbokk yi loolu moo nekkoon journal de la campagne waaye tey jii dafa am ay eh, ñu waaj mu di 30 juillet moo tax candidat bu ci waxal bu neexee yàlla nañ la jëlaat eh, yow nga wax say mbokk yi jërëjëf foofu la ñuy sëy seen revue de la campagne jox tax daje ci beneen numéro